internationale. C'est l'info internationale. abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu yëpp ci réew mi ak ci bitim réew. internet yi ñu ngi leen di nuyu fas yéene leen defal tënkub xibaar tey mercredi di 20 avril 2022 ñu tàmbale kook xibaaru biir réew mi. mbirum astu soxna te faatu woon fële ca hôpital Amadou Sakhir mbay bu Louga fi mu nekk nii nag yoon mu ngi koy doxal am na sax ñeenti sage-femme yoo xam ne démb yóbbu nañ leen kaso mu amit yeneen ñaar yoo xam ne fi mu nekk nii e, ñu ngi ci liberté provisoire gannaaw bi nga xamee ne sax ñoom dañoo ëmb ëmb boo xam ne dafa sori le 27 avril bi ñu dëgmal nag ñoom juróom benn sage-femme yëpp dinañ teew ca tribunal e, de flagrant délit ñu war a àtte mbir mi bés boobu syndicat yi yëngatu ci wàllum wér-gi-yaram ñu ngi gën a dëgëral xeex bi nga xam ne ñu ngi koy xeex seen diggante ak nguuru Sénégal ñoom ñi nga xam ne nag ñu ngi ànd ci alliance bi ñuy wax ànd gësëm yëgle nañ ne dinañ amalaat beneen grève ñetti fan te ñu fas yéene ko sax tàmbale bésub àllarbay tey jii mu war a dem ba le 22 avril liñ si jublu nag moom mooy nguurug Sénégal indi ay saafara ci li nga xam ne ñu ngi ko koy laaj Seydina Omar Touré nekkoon fi capitaine ca gendarmerie balaa ñu ko dàq foofu ngir mbirum Ousmane Sonko beeg euh, aji Sarr te ci ginnaaw gi nag ñi nga xam ne ñoom ñooy waa IAM jëloon ko pour mu fay joxe ay cours ñoom it ñu dagg contrat bi ci ay fan rek bi mu tàmbalee fi mu nekk nii nag euh, amaat na beneen liggéey euh, ka ko nag recruter moom mooy Barthélémy Dias di maire bu Dakar. moom Barthélemy Dias ci boppam moom moo ko xamle nee na dafa wolu kii di capitaine Touré ngir daal mu ñëw nekk conseiller am ci wàllum kaaraange mu ne nag loolu kii di capitaine Touré nangul na ko ko. xibaaru Afrique dañ koy tàmbaleeg Niger foofu nag ministre de la communication ba di Mahamadou Zada moom la yoon teg loxo gannaaw bi nga xamante ne nag dañoo njortu ne eh, loxoom dafa taq ci mbirum luubal ay koppar lu toll ci eh, trois milliards de francs CFA te loolu nag mu ngi amoon gannaaw bi nga xamee ne moom mu ngi nekkoon directeur ab entreprise eh, publique ci diggante deux mille treize ak deux mille vingt réewum Guinée Bissau njortu nañ ne dina bokk ci cour pénal international muy CPI gannaaw bi nga xamee ne ba fii bokk ci woon ki nga xam ne nag moom moo jiite sax lii di cour pénal international moom nag dafa dem foofale ca Guinée Bissau ngir daje ki nga xam ne moom mooy président ba di Umaru ko Embalo ngir daal sàkku ci moom ngir réewum Guinée Bissau bokk ci li nga xam ne moom mooy CPI gannaaw bi nga xamee ne nag kii di président Umaru Sissoco Embalo déglu na ko moom nak nee na dina jàngat dossier bi eh, tey it dina ko tontu. xibaaru bitim réew benn ponk lay doon muy ca réewum France foofa nag bés bu tey bii ñaar ñi nga xam ne ñoom ñoo qualifié ci deuxième tour bu élection présidentielle ba muy Emmanuel Macron ak Marine Le Pen ci la ñuy amal li nga xam ne moom mooy débat télévisé. muy ab débat boo xam ne nag ñii di français yi ñu ngi koy xaar bu baax a baax a baax ndax solo bi nga xam ne am na ko ci wat bi ba fi mu nekk nii nag ki nga xam ne moom mooy Emmanuel Macron moom moo jiitu ci xayma yi nga xam ne ñu ngi koy amal. dañ koy jeexal ak xibaaru tàggat yaram dëmb nag amal nañ tirage au bu éliminatoire bu coupe d' Afrique deux mille vingt trois te mu war amee fële ca Côte d'Ivoire Sénégal nag bokk pulam ak Bénin Mozambique ak Rwanda ñu bëri jàpp ne nag poul boobu jafewul te sax Sénégal mën na caa génn. première journée match de poule yi nag war a tàmbali le 30 mai bi ñu dëgmal coupe d'Afrique des nation nag bi la yoon di 34e édition bi dina am 23 euh, juin jàpp 23 juillet 2023 ci réewum Côte d'Ivoire li la ñu indiloon tey ci ay xibaar defar seen teewlu li ñu jox daje ëllëg jaa ngeen labbayk laa sharika lak labbayk yéen mbokki bëgg a dem umra wala ak Màkka wax leen alhamdulilah yàlla indil na leen almadina international travel ak imam Mouhamed Sakho mën ci umra ak pèlerinage ndax liggéeyam bu set te sell dina ànd ak yéen ci umra ci biir koor gi du 10 avril au 21 avril 2022 te lépp lu jëm ci seen visa seen hébergement ci ay hôtel 5 étoiles ci biir Màkka ak Médine ak seen transport ak ay gudd yu xam te mën a jàngale aj ak umra dinañ leen gunge ci lu jàppandal ngeen am juróomi fan ca Médine am juróomi fan ca Màkkatal Mukaram ci ay paquet yu bari te wuute à partir de 3999 dollars seen xëdd ak seen ndogu ca Makka ak Medine c'est ki leen defal bile xéewal mooy Al Madina International Travel ànd ak imaam Mouhamad Sakho te kat umra ci weeru koor day mel ni nga ànd ak yonent bi di ak Makka gaaw leen gaaw téléphoné 34 7 5 9 6 2 0 3 6 adresse mail international travel arobase gmail point com ou bien le 3w point almadina travel net dem Makka ci loxo yu wóor ak te ñaan yàlla nangu su ngeen ko bëggee contacter leen agence almadina international travel nekk fii ci Amérique ñoo mën ci umra ak pèlerinage laka wal mulk شريك له